docteur Moustapha Seck ak euh, mbooloo mi mu àndal di liggéey ci zone 2 bu Ndindi ak li ko wër yàlla moo dogal nag seen coordinateur Moustapha di sama xarit di nit ku baax di nit koo xam ne bëri na lu ngeen di seen muy defaru ci biir parti bi moom moo koy defar ndax day toog fii ci Ndindi xalaat lu baax lu rafet man koo doxal ñëpp xam ne moom moo ko def moo ko doxal mu woo nit ne ko est-ce que doo def nangam ak nangam ak nangam pourtant day boo ko defee mën naa jur nangam ak nangam ak nangam loolu feeñ na ci bi élection législative yi jub affaire Touba lëndëmoon na lool ba kenn xamutoon fa sa tànk moom moo toog fii Ndindi woo ma téléphone dama sañu aboo xalaat naa ne de dangaa war a créer benn groupe WhatsApp boo xam ne da nga ciy waxtaan ak coordonnateur moo xam nii ak nii ak nii nga koy defee wala nii ak nii ak nii te pourtant loola bañ ko iseere yi ci la ay solution génne li nga xam ne ci la yàlla dogale euh, ñu mën a am taxawaay boo xam ne euh, coordonnateur yi nekk ci zone yi amal nañ ko te ku ne xam na ne élection yi ñu jëm liggéey bi fi am lépp coordonnateur yi ñoo ko liggéey pourtant loolu lépp ci xelal Moustapha mi ci la bàyyi ko dafa jot ci ku am ndaw lu mel ne Moustapha Seck ci dëkk bu mel ne Touba ci département bu mel ne Mbacké nga am ndaw lu mel nii mu ànd ak góor yu mel nii ndax ñi nga àndal du ñu ay gone te it du ñu ay jaay suñ la tànnee wóolu la doyloo la teg la ci seen kanam ngeen ànd ab liggéey ba mu jeex ñu xëy dajewaat fii ne dañ lay sargal dañuy delloo njukkal am na loo wane lu tax loolu am kon président Macky Sall koy wax mooy ku am ndaw lu mel ne Moustapha Seck mii war nga koo valoriser ba ñëpp teg ko parce que gisuma ci département bi ku mel ne Moustapha ci bëri mbooloo ci juboo ak kilifa yi ci juboo ak ay dëkkandoom ci juboo ak nawleem yi nga xam ne maam ñoom la àndal ci liggéey bi ba pare di ci demee akum njub akum mat di ci demee it ak xol bu ubbiku ndax moom benn parti rek la am muy parti APR genn kilifa la am muy président daal kon nit la koo xam ne bu ñu ko jàppalee jàppale nañ doomu Ndindi jàppale nañ waa zone 2 jàppale nañ waa Touba mais jàppale nañ département bi parce que Moustapha kenn ku nekk bëgg na di Moustapha ndax mbaaxam ndax yaram ndax tegginam lan moo waral sargal Moustapha Seck Maawo man ngeen ci témoin parce que zone 2 ñi fi nekk ñàkk ñu fulla zone 2 ñi fi nekk ñàkk ñu xam-xam zone 2 ñi fi nekk ñàkkul lu ñu bëgg yéen ñëpp témoin ngeen ni zone 2 dafa amoon division am ñu am fulla di pañ di pañ fan war a bañee ba zone 2 jaaxal département bi yëpp ñu dem waxtaan ba boolee lépp biñ boolee lépp ñu ànd Moustapha Seck Maawu diggee lam diggee woon mu doxal ko waxoo ni ànd mbooloo de ñépp bég yombul mais dinaa fas yéene bu ngeen ma defee coordonnateur ma doon seen jaam liggéey président de la république monsieur Macky ñu ne ko allez-y nanu dem bi nu demee ba àgg ci loolu mu jëf ba jëf lu ëpp lañu foogoon jëf ba jëf lu kawe sunu njort ñun ñi nekkoon ci beneen camp bi ñëw fekk si camp tey lii may wax nii Alaaji Njaay ci la bokk su fi toogoon mën na koo wax kon waa zone 2 foofu lañu sukkandiku ba ni dañuy sargal Moustapha Seck parce que moo ko jëf su ko jëful woon amuñu ñàkk fayda toog fii naan dañ koy sàrgal duñ ko defal ku yàlla bi da koo def moo tax ñu def ko du politique duy dóor du màtt lu wér la lu am la zone bi yépp ngi nii accordé loolu kon loolu ñu am message buñ ci war a jàllale message buñ war a jàllale c'est très simple président de la république dafa am ndaw yu ko gëm ci département bi di ko liggéeyal guddi di ko liggéeyal bëccëg su nomination ñëwee am ay lobby yu tëju ci ay bureau ni ko nomeel diw nomeel diw tegal diw place sangam ñooñu bu leen ko defee ba pare ñu toog seeni kër lu defal Macky Sall dara kon ñu bëgg nag mu xool ñi ko gëm jeunes yi nekk ci dëkk bi di ko liggéeyal ak ñi nekk ci terrain bi di ko liggéeyal poste yi muy joxe ak nomination yooyu mu ciy joxe kenn jiitu ko ci suñu coordonnateur bii Moussa Seck moo ci loolu ngay profitoo xam ne Moustapha Seck yeyoo na sargal bi lan moo tax mu yeyoo dana wax ne Touba onze zone moo fi nekk onze zone zone Ndindi ay village yu bari ñoo ci aju zone de Ndindi amul sax ab conseiller conseil communal laa wax de waxuma beneen conseil communal zone yi ci Touba gi yëpp foo dem am na ay leader ay ASPT ay député ay nangam nangam zone yëpp mais zone de li muy liggéey kenn mënu ko te yeneen zone yooyu ña fa nekk ay ñoo ay kilifa lañ yoo xam ne Macky Sall moo dooleel te bu demee ci terrain bi mënuñu zone 2 kon ci nga xam ne kii jàmbaar la war naa sargal te loolu lépp buñ ko réussir grâce à Moustapha Seck te amul benn nomination conseil bi gën a yomb conseil communal sax amul zone 2 ay góorgóorlu ñoo fi nekk ñu gëm président di ko liggéey ñoo fi nekk kon looloo tax nag ñu toog xalaat ni war nanoo sargal Moustapha Seck. di wax ne Ndindi ak li ko wër bu ngeen gisee gi ndax man sa tur nit ñi dañuy dudd xaalis xaalis waaye dudd man du ma dudd xaalis danoo ànd ma nekk ak say coordonnateur jege ko lool ñu ànd vingt et un jours di campagne ma gis coono bi muy daj ak bëgg président gi mu daj ma ne man Abdou Bigué en tant que ak say coordonnateur xoolatuma président man Moustapha laay xool ah, ndax gis naa ne coono bi muy dañ ñii mënumaa xool leneen ci président lu dul moom mi moo tax moom jël sama lépp jël sama matuwaay yëpp jël sama doole nekk ci entrance di ko appuyer di ko jàppale ndax ku ne xam ne Ndindy gi ni ko doyen Abdoulaye bu waxee sans rémission amul fii nomi amul benn nomination bu fa moo ne bu ñu liggéey chaque jour rek chaque élection bu génne président Ndindy dana bokk ci njël premier li ko waral mooy ñaari centre wala ñett yi ni wax dan gañe bit ko gañe moom mii moo tax ñu gañe dem nañ fa guddi dem fa bëccëg dem fa suba dem fa ngoon te ku ne xam ne ne centre yooyu wala bureau de vote yooyu local yi passé dañ ko pertoon ca moom da bi ñëwee législative yi dane ma man dana ma biigé ma ne ko Mbàkke mu ne fi ma pertoon bi jaar dama ko bëgg gañ ngir ñi nag dana daax lool ndax mooy bëriwul doole ji bariwul ca ma ne ko yow Moustapha li nga am lépp def nga ko ci parti bi mu ne président jaral na ko damaa bëgg président man nag bëgg googu muy en tant que biigé nga xam si ne may damaa bëgg président bëgg googu laay xool ci moom moo tax tey bi ñu waxee sargal bi comme ni ko Xaadim waxee ma leen sunu alal du ko fekk sunu doole du ko fekk. ñu xoolatul dara bëggatul dara. doonte benn la poste benn nag président jox coordonnateur ñu ànd liggéeyam ñun bu doonte kenn la sax ku ne xam ne Ndindy yaatu na dëkk yi wër Ndindy bari mm. benn rek lañ koy ñaan. benn nomination bu fekkee mënuñu am ñaar ba ñett nañu ko joxal coordonnateur Moustapha ñu ànd ci ginnaawam liggéeyam ndax dañ ko soxla ndax yéen a jiit am pour liggéey ko ci Ndindy dafa des yéen a boobu nag il ñu am nomination pour man a continuer loolu ndax ñun dëwuñu ñu arrière u ndikkiloon ñun président rek la na dëng te bu soobee suñu borom dana ko gunge ba 2024 kon nag gunge googu nag leen ñu koy may mooy ñu dooleel suñu bi muy Moustapha Seck nga xam ni lu rëy daf ñoo boole di suma kilifa ndax ku ne xam na ni ay waajuram nga xam ni taxawaay bu rëy lañ am ci yoonu murid taxawaay bu rëy lañ am ci seexul xaddiim xam na ni mu demee ak suma waajur façon yu bari moo ciy dugg muy benn muy ñaar muy ñett muy ñeent parce que méritoon na ko bërki démb rek laa gis koo xam ne ci opposition bi la nekk ñu ne dañu nekk seen conférence de leaders yooyu ñu nekk ñu ne dañoo remporter six cent deux bureaux yi nekk ci Touba yëpp waxuñ dëgg amul Cheikh Abdou Bara Dolly moo ko wax mais amul information gis nga nit boo dee kilifa di wax dara danga ko war a wax mu leer nga ne gañe nañ ñoo leen ci félicité mais gañuwuñ fépp ndax nekkuñu woon ay yaafuus liñ manoon ñu ngi koy def taxawaay biñ amoon tamit ñu ngi ko doon taxe te ni ma gañee sëñ aboo mii am na bureau boo xam ne gañe na ko ci zone am ba mu nekk am na ñeneen ñoo xam ne gañe kon boo xoolee vingt nangam bureau yoo xam ne nii gañe nañ ko ci commune bu Touba ci six ans deux bureaux yi am na vingt quelques bureaux yoo xam ne nii coalition Benno Bokk Yaakaar gañe na ci élection kon Cheikh Abdou loolu muy wax wéru du ko sax lawlu nag di saaga wala may wax ñàkk teggi waaye loolu ñu wax amul buy waxati ak nit ñi na am information bu leer mu wax dëgg te yàlla tax li ko nit ñi may war na ko doy sëkk kon warul jël li nga xam ne ay nit ko xalaat may ñu ko mu bëgg a jël lim am di la li am loolu dara rafetu ci ñun nag tey la ñu gën a laxasaayu ci côté président de la république ànd ak moom bu bëggoon troisième mandat ñu fekk si waaw waaw heure bu ne soxla naa ñun ñëpp dañuy tag ku ànd ak moom jàppale ndax kuy jëf bokk la kuy wax ñoo xam ne wax rek la def ak koo xam ne jëf rek lay def tey boo demoon ndaamaan ba ci dem fanaa yéen ay kilifa mën naa tudd ay sëriñ muy bàyyi sëriñ Mbàkke nee na ma ndox mi mi wàññeeku ndax nat bi décision yi ci président bi jël ak yeneen ak yeneen te loolu ay milliards yu bëree bëree bëri la ci def moo lu am am solo boo xoolee tali bii nga xam ne da ko fi def jëm ba corniche daara Jolof jëm ba gaaras Dakar muy deux yu rafet te kuy saboote kum neex nga taxaw ci kaw tali bi saboote waaye di nga xam ne bu la fi démb fekkee ak bërki démb ñii fi juddoo yaroo fi xam nañ ne président Macky Sall def na fi kon ñun ñëpp a ko war a ndokkeel ñun ñëpp a ko war a jàppale jabul diabolisation yi nag bari na nit dina toog fenn di wax loo xam ne da ngay dem ba defe ne li muy wax mooy lu wér te dara wér ñu ñi xam am xam-xam am expérience xam li ñu war a xam xam nañ ne président ma Sall yëmul ak kenn ci réew mi ndax li mu fi def kenn def ko fi taxawaay bi mu ci am kenn amu ko fi loola nag muy lu wér nga xam ne foo ko wax doo am gàcce te kenn du ko ji ci àdduna kenn du ko dindi rawatina nag digganteem ak Serigne Mountakha Bassirou keroog bi mu Moustapha ñëwee toog ci wetam ne ko njaareem bañ nañ Touba bañ na waaye njaareem nangu na yaay borom Touba ak njaareem sama ronxañ ñi da doon tuuru mu ne ko kon de njaareem sagal nañ ma ma wax sëñ bi njaareem waa njaareem sagal nañ ma li sëñ bi ci taxawaay boo ma am solo kon loolu ñun murid yi dañ ko war a dégg am na nag luy fat seen noppi du ñu gëmloo leneen lu bokkul ak li sëriñ bi bëgg sëriñ bi buy bëgg wala buy jàpp am na lu rëy lu tax muy jàpp li rëy li tax muy jàpp mooy sëriñ Touba. liggéeyal bi président Macky Sall liggéeyal sëriñ Touba xam naa ne loolu la ko jàppe te muy lu wére wére wére kon daal bis baa nii ñoo ngi leen di ñaanal ñu ñëpp yàlla may ñu wér may ñu kàttan tey jii nii ñu ko programmé nii ñu ko defe am na yaakaar na balaa yàgg taxawaay dina ci am moom man xam naa ci loolu moom ndax président de la république xam na xàmme na te bëgg nañu ko liggéeyal te fi mu nii leer na ne dina ci ndaw ñi parce que xam na ne li bëgg ndaw ñoo ko man maag sëñ bii dañ ciy lu bari bari man ak am na ci loo xam ne du waxtaan biir fii waaye am nañu yaakaar ne ay taxawaay dina am balaa yàgg te loolu moom bu amee man de dama koy séeréer fii bu ma président Macky Sall naree nommé dara ma nar koo lekk man ak sama njaboot bàyyi waa zone yàlla naa ko wut lépp luñ may jox am naa yéene te fas yéene naa ko bokk ak yéen ba mër sëg damay ñaan yàlla musal ñi ci li nga xam ne mooy seytaane te diggante bu mu dugg mu yàq yàlla jàppale nañu taxawuñ ci ba loolu lépp duñu gàllan ko ndax lii nii tey jii ñëpp ñi ngi xippi seen i bët di xool suba fan lañ jëm yàlla nañu yàlla séentu yàlla nañu dal ci fu rafet yàlla nañu jëm ci fu rafet kon tey kontaan naa lool ci taxawaay maa ngi sant ñëpp maa ngi leen di gërëm bu njëkk loolu moom mën nañ ko wax président bi muy dalalee Dakar nee na Touba da di perte dem leen uti su ngeen amee ma nomé waaye nag bi yoon gis nañ ne fu baree bari xëy na ñàkk nañ moom loolu moom nit looy wax wax man damay bëgg bu may politique may wax dëgg ñàkk nañ fu bari fu mel ni Saint-Louis keneen na nga fa tey cër boo xam ne defe nañ ne Dakar war na ko am muy biir Dakar Saint-Louis war na ko am feneen ak feneen war na ko am gëm naa ne bu ko raw la Touba war a am ndax nag Touba ren wane na doole wan na boppam wan na taxawaayam tamit nuñu na kon lii di am muy muy remaniement bii nii yaakaar naa ne Touba war na ci am benn ba ñaari ministre loolu laa gëm man te loolu laa yaakaar te gëm naa ne président da ko def loolu moom président mooy bit bi en tout cas xam na ne ñu ngi koy xam na ne taxawaay yu ama am solo am nañ ko fii ñu nekk donc yaakaar naa ne mën nañ ci bokk bu fekkee ne suñu muur mi ngi ci am naa ci yaakaar donc nag loolu moom ci moom la des ñun moom li ñu war danañ ko def toog dugub gëm naa ne nag moom dina xool xam ne lii war na ko ci ñun mu taxaw ci muy Ndindi ak li ko wër ak ñeneen ñi nga xam ne tamit dañoo nekk feneen di ko liggéeyal ku mel ni sañ bu ak ñeneen ak ñeneen non man yooyu moom duma ci dugg ndax sëñ galas ku baax la man kuñ fi teg ma ànd ak yow 2014 ñu fi tegee Cicelo dama dem ànd ak moom 2012 dama ànd ak sëñ galas bi ñu ñëwee 2017 ñu teg fii euh, Cheikh Abdou dama dem ànd ak moom 2022 bii Matar ñëw ma ànd ak moom ñu ñëwaat kii tegu fi dama ànd ak moom man li ma gëm mooy képp koo xam ne yaa ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall soit bi baax na ka bu buñ la ko porté loolu laa gëm loolu moo waral lii am tey loolu moo waral tey loolu moom waa zone 2 joxe nañ ci benn alerte am na bii wax na ci bàyyi laa wax na ci loolu doy na ci non non ñoom moom li ci war wax nañ ko te xam naa li ci leneen luñ ci war def danañ ko parce que maag samay morom ñoo fi nekk nag donc nag boo xoolee loolu ma lim lépp paasewul ñeenti nit juróomi nit ñu ñu donc xam naa ne suñu tour de dana ñëw moom ku ayewul suba di nga ah parce que Matar élection yi lañ koy doog a jiital gëm naa ne yenn élection mën naa ñëw ñun la ñuy am naa ci man daal li ma gëm mooy ñun li ñu war na def def dégg dégg naa la xale yi nga xam ne donc da ngay wax lu leer da nga naan Antoine dafay ñëw ànd ak ay xale wax ji leer donc defe naa ne ba tey loolu lu baax la lu baax la parce que gagné rek lañ bëggoon ñu ngi woon ci yoon wi defe naa ne même bu doon benn am na lu mu tudd jeex na amul leneen vraiment loolu rek laa ci gën leneen li mooy ci ñu digganteek Macky Sall du problème mu xaalis moo ñuy boole ak Macky ku ñu koy jox ak joxuñu ñu liñ gëm mooy éthique ak démantu moom la ñuy